yow Aida Aida jógagoo ba tey Aida Diallo Aida Aida jógal yaa war a jëli fret bi doo jóg yaa ngi war a am cuuraay yoo livré jógal dama sonn fi yaa ne dinage bagage ba quatre heures dañoo war a yaa ngi xam dañoo war a libéré kër waaw après ak sama ji dama jaayoon ko bijou ba deux sa suma la nga ma yéeg jógal jógal jógal jógal ana Diega. ngi fi. merci. waaye xale du nelaw ba heure yi heure yi l'avenir appartient à qui à ceux qui se lèvent tôt. tubaab wax na la ba tey déggoo tubaab déggoo wolof. maa ngi tudd Aïda Diallo. Hmm, j'habite à Dakar. je suis d'origine saint-louisienne. Ndar gi ku ne xam na xale ndar yi. maa ngi nii rax alpulaar ak naar moo waral ma jongo ma nii dara mënu maa fay. maa ngi sama profession mooy commerçante damay jaay xeetu cuuraay damay jaay xeetu ay ànd électrique damay jaay xeetu jaljali damay jaay xeetu numéro yu baax yoo xamante ni yu jéeg di soxla si man mi ngeen koy amee man Aïda Diallo yemuma ci loolu kese je suis dans l'événementiel plus précisément ku ma xam Aïda Diallo dàkkantal bi sax bu Wally parce que moom laa gën a laa gën a liggéeyal toute ma du coup ñëpp xam nañ ma ak moom je dans je suis luy xeetu soirée tout ce qui anniversaire yéen a ma gën a nangu. ii man nelaw naa de l'appel ma am. ñu war a livrer sama client ñi ngi may wóor a sànq tey. kenn du gaaw soo la ay waay ndeysaan kii gentil na de mi ngi ma defee publicité publicité sama sama sama cuuraay ak sama parfum spray yooyu ndeysaan eh? non c'est pas possible waaw Khady Khady waaw mais dama jomm wala ma damay waaj a waar. non li mu nekk. ay lu xew ay dafa jàmm lu xew. Khady Gueye. Hmm? Khady sama copine boobu ñu woon hmm. ma jaay rafet yooyu. y a ni ma Aïda gis naa yi ngay jaay nice na et jox ma defal la publication parce que moom day jaay yére. man ko man ko hmm. gis mu dugg mën naa ay kii dafa gentil ma gis mu dugg même chose ni à vendre. bàyyi mii. mu ne waa lii lan la. Hmm? ma gis ni mu dugal numéro muy dem tout. waaw mais xarit ga lii mu Sénégal fan la ñuy jëm tamit. waa Aïda àddina boo demee ba ñu lay copier kon li ngay def mu baax. lii dee xarit ga luy copier xarit eh. yàlla. amul gëm waxal ma ko wax gëmuma yàlla. Aïda nit ku nekk sa wërsëg ngay ne ngay lekk. doo paase sa wërsëg. Aïda marché ñëppay jaay. même dugg te ñëppay jarle. non non non xarit déedéet. amul solo Aïda àddina amul solo. déedéet xarit ga déedéet. Aïda li débat. lii débat la kay xarit parce que. day day tax nga gën a am jom. waaw déglu ma jóg nga naan sa café sangu te dem jëli sa fret bee te dem euh, livré sa ay cuuraay. loolu moom xadi xadi yaa ngi sama xarit. ayda jógal ayda bàyyil noonu. déglu ma. yaa ngi sama xarit yëpp kii mi ngi jaay robb kii mi ngi jaay daal kii mi ngi jaay kii euh, euh, saak. moi j'ai préféré ab dem Dubaï. jënd samay parfum samay pour pour ne pas même avoir la même chose que les autres ñi ngi jaay yére ma bàyyi ko fi xam nga mun naa ma ko parce que je même nit yi am euh, ñu am comme même chose que xam ne soi woon bu lay na ah, ku nekk sa wërsëg ngay jaay ko dama koy ah, woo dama de non dama koy woo ana café bi xale yi ñu ngi ñëw ah bu baaxee day bëgg dee nu def ñu def ko mu nekk sax sama relation ak sama yaay ak sama sœur man sama yaay mooy sama meilleure amie man lépp lu ma war a wax nit si mbedd sama yaay laa koy wax aw sujet tabou ak sama yaay xaw ma ni yaay la dama ko jàppee comme morom lu man naqadi moom laa koy wax si àdduna man yàlla fa def ni sax waruma sax mun a wuti xarit parce que yàlla def na ñaar laa du ma sa kenn sœur jumelle laa am donc pour man lu ma war dem mun a wax xaalis si mbedd naa ko ma sama seex sama yaay su ma génnee du nalaw tant que ñëwuma kon man man wutuma si biti j'ai une mère en or j'ai une boo xamante ni elle tout le temps là pour moi donc j'ai pas besoin de d'aller dox pour pour ut leneen am naa yaay yoo xamante ni macha allah compréhensive na dafa comme bébé parce que même six ans laa koy woowee li ma sol lay sol et j'ai pas honte de le parce que man <laughs> sama yaay lay ànd fu mu munti dem donc euh, macha allah sama sama yaay et je je je je peux pas demander euh, meilleur elle c'est une reine. doo dama la woo ba nga jël. mën a may dara tey xaaral rek ba àndoole bay bëgg dee. ñu def ngeen def ko amu leen seen idée bopp ni day toog defar idée ay at def ko ngeen du ko cabax bii du mën a jaal may ma rek yow. am na audio am na. Euh, ça va xam nga léegi maa ngi lay woo mais gis naa ni que je sais pas da nga xaw ma jëloo ma dama bëgg nga ñu ma waxtaan ak yow parce que man xam nga ma je suis tout sauf hypocrite parce que je peux pas comprendre nga ñëw sama kër jaay ma nga ne ma jox ma sa bagage ma publier la ko même pas 24 heures même pas 24 heures nga jël sa même truc dugal ko naan à vendre jël jëte sa numéro moi je peux pas comprendre seen esprit yi ngeen am sénégalaise parce que mënuma comprendre nit ku dem ba Dubaï jël ay bagages am pour ne pas vendre les mêmes choses bañ la ba ma man maa ku ne xam ne bëgg dama bëgg affaire affaire habillement mais j'ai même j'ai même pas voulu vendre les mêmes choses que vous jënd samay cuuraay samay spray nga ni yow da dem jënd yow Dubaï ñaata boutique moo fa am lu tax nga préféré jënd même chose que moi non wax ma dafa moo tax ma woo la lu tax loolu pour lan yéen daal Sénégal Sénégal nii rek. amuleen idée il faut nit defar defar da ngeen ñëw jël toog buur ni yéen ko moom mais bii du jàll façon man am na yenn xaritoo yoo xam ne xaw ma ko parce que ci pa mënoon ni sama xarit nga nga gis ñoo sama ko gis may jaay même chose nga mu jël amul problème na sa xel fa toll waaye yàlla baax na dund sans lu tax man la je pense pas mooy que léegi lépp téléphone la communication téléphone la gën a mën a jàllee parce que ni nga daan dem di di wër fu ne li may jaay sax sama téléphone laa koy laa koy jaay je bouge pas chez moi je fais yaa am na léegi lu tudd statut ñëpp xam nañ ko ak Snapchat réseau la boo xamante ni dans 30 minutes mun nga rendre wala mun nañ la seetaan sans pour autant nga bouger fi nga toog donc man je pense pas toute ma vie c'est mon téléphone li may jaay li événementiel bi may def communication si laa ko jàllale du doo xam ne mun naa dund sama moom je moyen de communication bu rapide et fiable la donc du coup fa yow chaque jour ñu tàngal sa xol pour un rien nii rek chaque jour nii rek mais man dama choqué. yaa xam tax ma lay woo jëloon waaye di di naa la audio wax naa la njaaj a njaaj boo yow di ma tontu. boo naa ko jëloon yow. fajar ba léegi ñi ngi fi nekk di range kër gi war a war a taxaw quatre heures du matin nelawuñu nga nekk fii kenn mënut nelaw ba heure bii. dama yow dama tiit. Eh. dama ko. Ah, lu xewati ah. sama xarit bi may noonu bi may nekkal chaque jour di ànd ak moom. démb ma ay yooyu ma sa euh, kii cuuraay dafa ma ne ma dugaloo statut mhm. tey ma xëy gis mu dem voyage jënd même chose que moi bu di ko jaay mais dama tiit ma yaa de quoi ba fa de ah mu dama joom mi lii mënul ne sax woo naa ko faalam ma waaye maa moom da daañ dox ba tase insha allah maa ngi koy xaar yabaate amuñu amuñu kii du du ñu improviser lu ñu defee ñu def ko toppandoo toppandoo ñépp di jaay man ma préfère jaay loo xam ne kenn jaay ko mais mañ indi samay produit même ma toppandoo mais dafa abusé ba fa lii mënuma ko lii du ma ko fa bàyyi day yomb trop chaque fois bu ñu ngeen wax bàyyi mu jàll bii du jaal day yomb trop mu ne c'est pas possible hmm. loolu xoolee lan la jàppee ko nii rek yow na yow daa ñoru la waaye yow ko nii <laughs> yàlla ak nekkal fii naan kii wak sama idole bii wak sama léegi gis naa la keneen ngay yogar yogar ak moom di ko may ay dàll di ko may ay yére ñu wax yóbbu ko salon Simon jëndoo ko perruque et tout. voilà sama sama gën def ma bëgg sama idole. Mhm. voilà la li mhm. yaa <laughs> mm. kon na jéggi na frontière. loxo lii loolu ci li nga nekk rek la nekk rek yàlla def na loolu. mais mu ñëw naaka rek comme que man xam nga maa ngi ñoo bokkul. man balaa may wax da day fekk yàlla moo fi damay lijjanti ba xam li ma leer comme que yow la sama doom la sama it ci li nga nekk rek la ne yow xoolal lii sa baa ngi nii idol bi rek léegi foto bu jegee nii sa doom la yàlla moo def ni rek doom ah li mu nàmp rek <laughs> bu buy nàmp buy nàmp ci weenu yaayam da koy xool li yàlla moo def ne li nga bëgg loolu la bëgg li nga bëgg moom la bëgg lan yéen ñaar yéen a bokk far. waaw kay eh eh eh nga ne luy loolu comme que dangaa yeew di wax alxuraan lii am nga leen loo war kaa sa doom fi indiwoon keroog di jaaga jaaga di dàll ak yére saloo Simon waaw kon dem na rek wuti safar bëgg ko comme ni ko bëggee. waxal leen am na leen loo waxal loolu. yow yow yow yow yow baate nga de. tool fa di wax rek léegi xëy ah di nga am leen loo gën wax mel ni nelaw. xaaral ma nga orale parce que lii mënu ne tey àdduna saa yoo yeewoo keef soo awa awa awa foo nekk awa aywa aw ñëw aw dama produit aw ñëw sama kër lii ngir yàlla aw ay aw balde man maa sonn aw balde aw aw ñëwul gaaw aw aw ñu ñëw gaaw ñëwul léegi sama kër aw mënuma dara parce que aw mënuma rek maa ngi ñëw léegi <sighs> sama digganteeg aw balde foog naa ni wur na àdduna bu doon suba suba suba dama koo defaat dem ko parce que c'est une personne que j'aime tout au fond de moi c'est une personne ak kii euh, j'ai partagé beaucoup de choses c'est boo xamante ni awa dootul xarit c'est une sœur pour moi yaa na ma yàlla baal noonu laa mel bu doon suba damay amaat pour pour sama an awa damay dem parce que koo xam jar na ko la naa pas mal d'amis dans ma vie mais awa c'est autre chose li ma dund moom du loolu wax du may expliquer àdduna gis nañ teg nañ seen bët Sénégal Ndiaye fu ne xam nañ ko kenn mënutuma sa gis ne ma Aïda Diallo man kese assan ni ma assan ni ma ani Awa Balde donc euh, Awa Balde c'est personne que j'aime tout au fond de moi c'est une sœur c'est une tout ce que tu veux mais mënutu mënu si bu histoire boobu amoon ba ñu ba ñu médiatiser ko si c'était à refaire dama koy defaat ndax Awa Balde jaral na ma ko Aïda Aïda lan la eh lu xew looy jooy mbaa jàmm ku yow ay yow laay waxal lan la waaw doomu wax lan la lu xew waaw léegi wax moom ayda yooyu eh, baata sama xarit boobu ñëwoon fi keroo waaw ndax aw oh, maa ngi yeewu tey déjà sama ñaari affaire yoo xam moo métti la maa ngi yeewu gis nga sama jaay bi chaque jour damay bëgg def lu kenn du def bugguma sa ndóole ak nit ki jënd samay cuuraay sama xarit même dem jënd même chose que waa ñoo di jaay waxatuma awa awa tiitu ay da tiitu lan awa tiitu fu ma jaar ak moom yëpp awa mu def ma lii lan la la def <laughs> laa bii duma ko ko baax wax ma lan la lan la la def nga xam nga sama doom boobu awa ban doom danga cee bëri la di sama doom boobu dañuy xale bi dama dañuy xaw ma man la nee na maa idoolam dama ko neex et tout. la lu xew. lu mu def ma xale boobu dina dem di génne aw. mais loolu bettuma Aïda. nga ne bettuma mënuma bett. qu'est-ce que je t'avais di sur Tito. vaurien jarul ay jooy. waxoon naa la ne kii du ku baax moo tax yow gisoo man nu ma mel ak moom nuyoo laa sekkat moom dem parce que je sens que il est pas net. c'est pas quelqu'un d'honnête. ça se sent même sur ses yeux que Aïda il était pas sincère. man maa ngi yaakaar ne lu nekk la Aïda. mais Awa Balde fu ma jaayee Titu. Awa Balde àdduna yëpp wax awa ma bàyyi lépp ak nax Titu. Awa Balde Titu ma def lii Awa Balde sama fan sama fan say gën quoi. sama diggante góor xale góor yi bëgguñu lu baax parce que yow mii di rek boo ma xoolee xam ne waruma toog ba heure bi aw ma jëkkër mais dañ nekk ci monde boo xamante nii déjà góor ñi sax man dama des fois jëkkër ci dañ ma ragal déjà dama bëri histoire dama tàng boo ma xoolee da nga ne apprécié xool ko tatouage yi xool ko du jigéen bu baax amul anyways c'est ma vie mon excusez-moi mais bu waxu nit yi parce avant d'hiver mooy lool léegi euh, dañ nekk si monde boo xam ni xale góor yi dem nañ ba nekk ay gigolo ngeen baal ma dem nañ ba bëggatuñu lu baax dem nañ ba ñu jaawale pasti ak mm, mooy entre guillemets les les ndax euh, ñu ba bon ni ñoo yàq ñu baax man boobu franchement parlant duma sax bëgg sori si affaire xale góor yi parce que il que dama am ay jaajaay yu metti si góor te yal na ma yàlla baal bu yàlla bu jëkkër sax bu ñëwee baax na bu ñëwul baax na parce que vraiment dama am benn vécu bu metti ak xale góor yi di ci xam dara si bi incha allah. ah Aïda tu savais pas góor mooy jël ñaari jigéen boole leen ci arène combat amu fa. mais luy loolu awu ba de. góor ay am càkk jama ci përëm. c'est pas nouveau Aïda. ki ne dalaa fan sax teg bii ice la bët li nga bëgg lay bëgg li nga sol la bëgg sol fi ngay teg sa tànk lay bëgg teg tànk waaw moom moom mu bëggee ma xanaa tiitu sa moo waroon bañ am ngor ak ak li ma ko mais góor yi dañ dara mënul fee seen bët lu romb rek bëgg nañ ko ne xaraas jël kii kii war na ma ci ne kii man bëy bi mu musóoru ñëpp tere nañ mu titu ma bañ ku ñëpp tere nañ wax nga sama yaay wax na samay am ku ne wax na ma bañ aw ba daa xale góor nii rek nii rek chaque jour nii ay da nee naa la du te luñ def génn si du góor mooy defar euh, avenir u jigéen jigéen yaay takk sa sër eh, mais aw ba rek noo mënee liggéey te nga am liggéey wuti sa xaalis gérer sa bopp gere sa famille góor bu ñëwee doon bonus waaye mënoo jël sa vie yëpp escorte ci ko ci góor. bon comment je pour être ak ay jigéenu VIP genre ay 17h ay VIP du ma tuddee loolu VIP. parce que ñooñu waa mbedd mi fi ne ñoo leen di woowee VIP mais man c' est des sœurs c' est des comme ku si mel ni Kole tey dama tëj ba xaaju guddi aw lu ma métti lool dama koy woo téléphone mu dalal ma ku si mel ni euh, du ma lim parce que damay juum. mais kooku dafa sori ci ki tudd fa sori si man trop trop parce que du du man man ñoon duñu VIP ci man c'est des c'est c'est une mère pour moi Collé Collé saa yu ma sama rangooñ tuuru mu fajal mu woo ma defal ma on se voit duñu sax ni sa mun a am duñ duñu gisee mais bon chaque jour il est là près de moi que que que nit bañ ko gis u pas elle est là. Oh, au lu baax daal seen am na ñu ni dee non bëgguñu ñoom daal lu bon rek la ñu bëgg. waaw mais Aïda toi aussi tu sais que pare jigéen yu tey sax ñoo gën a tee doy waar ndax góor yi dañ doon doxaani waaye léegi jigéen yaay doxaani. nga mais nga am classe nga mais classe du loo xam ne ne nii day day ñëw rek euh, nga ne da nga koy am force. ça doit être inné en toi góor da ngay inaccessible nekk nañ léegi ay dulkatu ndaanaan dara du leen romb lu leen romb ñu ne ko xëriis waxoon naa la lii yëpp tout. chaque jour nga yéen ngay jooy. mu dëgër bopp sa kanam bi froissé. ku la gis yërëm la duma ko nangul benn góor concentre-toi sur ta vie jënd say or jënd sa kër jënd say bien di teg loolu laa lay jox comme conseil dama bëgg yi nag seet naa ba seen ko yóbbu bari leen mu gën a nekk ñoom te yàlla tax en tout cas doy na waar ñaanoo leen dara ci rekas la tête pour pour pour mën daal mën daal man sax maa ngi tàng ñii may waxee ak yow man daal ayda bu ñu toogoon te di jël débat góor di ci wax fii ba suba man xam naa ñoo xam ne ne rafet nañ raffiné classe suñu wax sax ndànk la ñu waxee seeni jëkkër chaque jour ñoo ngi ci biti. aw ba la qu'est-ce qui manque chez moi quest que j'ai pas fait bu tiitu lu tax ki yem jëndee ma kii lan lan la léegi lan laa def loo xam jaru ko est-ce que gis nga sama kooku sama doom la doom lan laa ko defal si àdduna lan. rien du tout damaa lu ma dàq. qu'est-ce qui se passe aw ba la qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes. ak ah, góor yaa mel noonu rek dund presque ay cinq ans en de ta vie. mais cinq ans mais est-ce que ça fait de toi ta vie. tu te rends même pas compte c'est rien expérience la ça va t'apprendre pour que suba li la dal ni dootu la dalati boo doon jël 10 di ko def ci relation di nga jël 4 yi def ko ci relation 6 yi nga def ko ci sa bopp. waa gis nga euh, euh, Beyoncé nu mu mel. mais Jay-Z trompé na ko. non non non j'ai plus goût à la vie quoi franchement c'est bon. xale góor daal nii rek nii rek. mais nag yow war nga xam que ne ni yow at kooku vous ne boxez même pas dans le même ring Aïda jigéen da ngay rëy bët awbale si bi chaque jour boo tegee sa tànk nga xam ne fii nga jëm ni baaxul da nga koy teggiwaat reculer trois pas en arrière il faut savoir prendre de l'élan dans la vie prendre surtout de hauteur et de des choses hauteur mais Aïda tey mënoon nekk toog xam sa bopp xam ki nga doon xam fi nga jógee nga ne dangay dem di mélanger waat ña nga xam ne ni xamuñu àdduna jaay taar moo leen tax a jóg. faire le beau. ana góor sa ak Snapchat. góor yi léegi de nii la def di snap kooku nga ne kooku ngay nekkal. fii su ma jaaree titu sama yaay tere ku ne tere. titu c'est un vaurien boo may wax danga may wax koo xam ne sax am na ambition. man gis naa sa àdduna bu ñëpp waxee yow nga bañ def nii di wax waaye si ñu si gaal xaj nga dugg fa. xale gu daal chaque jour nii maanaam je ma vie parce que am na des temps yoo xam ci franchement sama yaay mu yónni yàkkamti ma chaque jour tey tey mu tën nag maa ngi nii gis naa ku ne wax na ma bañ. ah je te l'avais dit les hommes d'aujourd'hui laisse tomber. concentre-toi sur tes objectifs va de l'avant liggéeyal amal sa bopp. dama yaakaaroon ne bi may woo lu garaaw la woon xoolal ni ma ñëwee xool li ma sol sama kaw lan laa tëddee. mais aw ba yaa di quoi dama tiit. kaa ñu dem ma gunge boo leen toppee sa xol bi la ñuy jël di ko vinaigre di ko kaane di ko poobar chaque jour ngay am lu la métti te jaru ko. ay da sa jaay bi rek nga am mooy sa sutura. kon da ngay jóg ñëwuma gunge la jox ma lu may sol sax parce que lii moom vraiment xanaa c'est pas présentable du tout. jógal aal ma lu may sol. ñu dund suñu dund. wili wili piw ko. yaa ngi may dégg symphonie ko rek muy neex ñu ànd kaay ko fi ñu dem man yow laa am. am solo benn bopp lu tax je ne fréquente que les VIP du sax VIP parce que man yaay fàlla mais damaa jóge Ndar ñëw dakaar yàlla boole maag benn nit boo xam jaar dafa siiw muy Wally Seck euh, tey duma ko tay tay du ma ko damm di ko ndamoo parce que ku ma xam tey moom la. tey balaa ñu naan Aida bu Khady Gueye sama yaay dañ naan Aida Diallo bu Wally Seck parce que tey du ma mel moom la nit du fàtte ki ki tax li am si su may côtoyé genre nit yooyu yëpp moom la parce que tam vraiment ñëw ñu rek xam Aida Diallo dañ naan Aida bu Wally seek dinañ ko découvrir parce que lii wa tax na nga Biaye Fall laa je pas soxla ma sa xam VIP mais xëy na itam milieu bi may liggéey ak milieu bi may évoluer ak ki may ki may liggéeyal moo tax je suis du le droit ma xam ay VIP parce que moom déjà VIP la donc euh, mooy loolu daal il faut je suis obligé ma xam VIP yi mais du dara xam naa ay VIP comme xam naa ñeneen ñeneen ñeneen ci àdduna waaw sax bi laay ba gis nga ma sonn waaw du jàppale tuuti te awa carton bi dafa dis ay da bàyyi ma jàppale la bii bàyyi ma bii la bii xam ay commande gis nga jël ay commande balaa may benn problème daal de sa bi daa maanaa de gis nga li mu jënd yëpp daa faale kenn nii la dëkkee amee chaque jour day jënd woo ay copine ñu jënd pour sama relation ak Prince Koumé ak lu tax mu may ma njëkkee ak lu tax euh, xew boobu amoon ak coow li bari woon loolu loolu la ma si sawar a tontu parce que Prince Koumé c'est c'est un frère c'est du ma ko woowee xarit c'est mon meilleur il il est tout pour moi Koumé bañ nekk mën a moom bokkuñu sa xeet Koumé nekk gis nga àdduna dañ naan xarit dina dina gën doomu ndey xëy na peut-être li tax mu may ma njëkkee loolu maa ko dund ak moom il manque pas de de sœur il manque pas de il manque pas d'amis il manque pas il manque de mbokk mais tey kooku maanaam du ñu dund loo xamante ni ëpp na rakk ëpp na mag ëpp na yaay ëpp na doom seen kër ñëpp ko doon dox doo nga may diw njëkke parce que ku ne xam ne tukkuloo du génn cër si mbedd mais dafa taxaw tembale ni kii laa ko may parce que maanaam moom ñu ko dund kooku suma jaajaar moo koy wax ak moom fii lu mu fi jóg Parce qu'on a eu, on vécu, moi et lui. Il sait de quoi je parle, moi je sais de, moi, je sais de quoi je parle. donc euh, mariage boobu nekkoon lu ma neex loolu ma dégg ci lu neex kon lu naqar mais gis nga cër ci àdduna dafa neex aw ma dara du ma lenn du ma kenn mu ma gën a kenn si dëkk bi mais ku romb kër yëpp ñëw ba sa kër jox la danga koy nangu lool quatre jours yi ma xar ci sama tànk tuba def ci lu ma mën ak lu ma mënul parce que xale na xale rek laa damay taaba taaba rek bu tey ma dem si événementiel ba bu saa ma gàddu sama bos dem jaay waaye man boo ma joxee cër yëg ma respecté la moo tax dama si donné corps am pour événement boobu c'était c'est benn événement boo xam ne inoubliable dans inoubliable dans ma vie parce que franchement yaa xalaatuma koon ci kume te tey def na ma sagal na ma yiir na ma xam na woon ma maay kan bu njëkkee dafa rëy koo déggoon sa dëgg da doon tiit mais sama boo xam ne daf ma gën a daf ma neex sama àdduna parce que xam naa ne tey ko am na fu ma teg ndax njëkkee égal turandoo donc turandoo dafa làmboo juróom-ñaari jikko donc ku la ko jox rek respecté na la aw ma fayam. na sama jël seen ay may jaay affaire yi kenn du am may am am te ay problème est-ce que man duma jëndaale bii sax. ñii dafa neex de ak a neex. mos doon la. bés bu kii de dootoo ko defat kaay moom ma dem laal hello oui madame comment tu vas ça va eh madame ba dérangé na la ça va ana xale yi ñëpp si monsieur il va bien ah d'accord macha allah madame dama doon wax sa commande yi na de balaa balaa may muy mel comme la dernière fois

mais bu leen ko yàlla dàkkantelee bàyyi ma nangu leen ko ku ci mel ni Mbaye Diagne international ku ci mel ni Prince Macky ku ci mel ni Junior Cissé Lo bu ma limee damay juum parce que man yàlla dafa dogal ni xaritu VIP yëpp la ouf sonn naa ci yàlla dugub xaas moom it allo madame cëm sama jéeg kenn du yow infrared la dernière fois yi ma la joxoon nga ne ma naa la ko commandé euh, euh, indi naa la cinq paquets comme ak euh, ak déodorant baax na d'accord xoolal jarul sax bi du naa yónnee comme xam naa li nga bëgg yëpp mi ngi ñëw indi la ko dégg d'accord gros bisous sama xarit bi allez au revoir bu jaar jarul sax koy war comme moom bandi la dafa féroce sama jéeg boobu ma audio kukuna buja ci aas lay doon ba muy moom xeetu cuuraay yi ma indi de boo ko taalalee aas yaakaar naa du bouché gaawal gaaw sa commande ngi nii egsi na maa ngi koy dugal gaaw si paquet son mon livre si tu veux is up to sama jéeg bi kenn du yow ak kan moo des awa encore madame Lam woo naa ko wala madame madame Kouyaté Zahra waaw voilà coucou mon amour suivre Cheikhou lay doon ba muy moom dis-moi sa bagage yi egsi na ñu ngi nii nag maa ngi di ko paqueté xam naa euh, instant bi da nga war a nalawal la sais a bébé bi occupé la maa la yónnee sama livre léegi bu egsee sa buntu kër dina la woo wala avant mu dépassé dina la woo comme ça nga indi ko parce que xamuñu comme bépa maa ngi doy bàyyi comme xam naa léegi di nga bëgg bàyyi ma woo sama livre ma indi ko dégg allez fóon na ma bébé bu baax ak monsieur bisous mon amour te nga woo si mon chéri bien. ci mu ko. Ayda xaar dama fàtte seen téléphone bi. Ayda aussi fa seen xeer borom baax yi si ma si man ak yëpp kenn du yow dis waaw ah, naka tàngaay bi maa nii dama génn mi naaj bi dafa tàng sama frère bi laa jëli woon nii mais dis-moi sa commande externe comment on fait ah d'accord soo wàccee di jaar. waaw comme tu es véhiculé c'est mieux nga jaar comme sax am na yoo xam ne bees la gisagoo ko woon sax comme euh, am na udd charkia ak alfares bi nga ñëw xool ne ak ay shirley tout ce qui va avec comme gisoo ko béppar waaw nga ñëw xool ko moo gën c'est mieux jaaral sama ko dégg bougé maa ngi fi d'accord ça marche waaw bu fàtte sama période bi tamit de mi rey bi ma woo defal bu ko fàtte dégg allez gros bisous allez bye bye merci bisous kuy fëgg ci bunt bi loolu dina xaw doy waar de ndax daanaka gisaguma kuy fëgg de maa ngi jéggalu am naa nag ay mooy loolu fu mu valise beeg jaay beeg événementiel bay fëgg maa ngi ci loolu ba ci kanam gore bi ñëw na weextaal cuuraay ñëw na ay ba fa cuuraay yeeg si li wax weexal taal kanam yoo xamante lotion karoon bee xaaral dañu la àndoon. ma nga yem te dafa sonn ma ngi yee tas ga kàttu yi laa ko gàdduloo. ah ma ñëw toog xool ba la baaxee ay daal. pour kanam taas soo kii ci am. ak a neex. ba bi touche mi bi. am na yeneen bi dox. ah. macha allah yàlla lépp jar ak jàmm salaam. amiin amiin suñu station. wala am naa sax spray. chambre yi neex sax. waaw alors. joli kër. eh damay toog. pare nga ci baalu. yàgg na ba fa. mooy dëkk rek. mu nekk sama chandise bii li mu dëgg liggéey daal mu nekk sama avenir nii. page tout nekk daw maa fi. lii laa bëgg ci xale. xale boobu yëpp a yem liggéey yàlla baax na. sama avenir. amul benn góor. yëpp a neex ubbi yëpp a neex ubbi nit bii noonu la neexee tamit. yaa ngi fàtte ki ki ki moom moom lay tuuroo. bi nu sekk moom bëgg. wala baa ngi nii. bii mooy diw bi la diw bi la. bii mooy lotion bi. bii mooy selu bi. bii mooy selu bi. daal la baax ci kanam. wala ubbi yaram ak lépp. dañ la def toj la bi nga xeeñ ko mu neexee. fépp ko fa. c'est des Hmm, ñax na trop sax. bi ñaata. dix mille rek la ñu. yomb yomb fa yàlla. mën nañoo ambalee sama sama mbuus yi yóbbu sama commande yi taal bopp. mooy la dëkk liggéey rek. loolu defal sa benn ngay dem bi yóbbu ko comme du coup xam nañ cuuraay nii. Mm-hmm. jaratu may dama di wan kenn. bàyyi bii ay commande rek la ubbi bi ak a garaaw benn xarit bi ubbi su ak bu soxla moo ma laa koy mujj nii livraison uuf sonn na añ sax mu toog ceeb bu jël wala ceeb bu weex wala dama daa ma xiwoon di kaam mais ana xarit gi ana sama yaay ay jus xam nga mu ñëw ah, ak naaj dafa defar jus ba guddi ndeysaan sonn na waaye bu fa nga jónge ma gis nga si si xeetu ma waa paale noo bati dara fay waaw foo jëm ni fenn toog rek li ay xew bi sa xeetu robe de. kii moom moo woo sànq ndax ma Aliou Diallo sa bi laa demoon di di pose ongle. Mhm. sa robe bi ko wayu wala mu tool bi la. sa kenn du ma xaaree rafet. ah aywa li ma soo rafetlu ba tane dara fayal kenn du xaaree kese kenn coow. a ngi réew mi ah, na tuumi. ñu na. neex na. ba pare ut bi si boobu moo neex véranda en plus day neex sax. teg ci ci coiffeuse kam bi sax nga tuuraay da nga ñëw tibb. bii nag c'est plus la peine. nii ngay def ay stig la. voilà waaw jëlal li jël benn xol kenn du yow daal di teg sa ànd. da ngay waaj indi indi sa ay ay ànd électrique yi. mooy seen liggéey rek dafa daa ñu añ. après ñu kaas suñu suy xew bi. incha allah comme dëkk yi moo leen coow nii amoon jarul jëloon sama frère bi. et j'ai tout le temps macha allah. lu négatif li ñu may waxal dama ciy fier xam nga lu tax parce que tout tuuma day dugal nit àjjana yàlla sax moo dogal émission bi am parce que my life ni dina xam dinañ jànku parce que l'apparence elle est parfois trompeuse dama kontaan parce que di ngeen xam beneen version Aida Diallo gis nga Aida Diallo mbay tatuwaay bay dugg dugg di fréquenter ay stars di ànd ak ay waykat ngeen genre am nañu ko sax étiqueté étiqueté maam je sais mais man boobu bref am dañuy am occasion ngeen xam kuy Aïda Diallo comment elle se casse la tête pour vivre comment elle elle mène sa life et tout et dama ba lu négatif nit mu war ko mën a bañ ci àdduna parce que déjà dafa may gën a forger dama gën a forger ma doon meilleur même su ma ko nekkul sax dinaa ko dooni parce que bugguma ko man sama àdduna ku ma seen si gaalu xaj fekk ma ci damay dégg lu ne du ma def dara parce que toute ma vie je me suis faite toute seule moi dégg naa lu ne damay reetaan parce que am na loo xam dañ may ab jàng